suuratul xijir yi te xijaru mooy nitu samuuda ya te samuuda mooy nitu hóod ya saar wi makka la wàccee alqurtubi loolu la wax juróom-ñeent fukki aaya ngi ceeg juróom-ñeent tuddee nañ ko xijar ndax li ñu nettali ci biiram qissatu asxaabul xijari saar mook saar yi niroo yi wàcce yi makka ñoo niroo dana wax ak mushrikoona yi ci seen pas-pas yu yàqu yi seen xalaat yu dëng yi dana saxal ne dekki am na feeñal kàttanu yàlla fàttalil doomu aadama fan la jóge woon ndax mu xam boppam dana ko wax it ana ban alaaqa la am ban jotee la am mook malaaka yi ak jinne yi dana nettali qissa lenn ci ay yonent mu jeexalee waxe ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam alif laam raa allahu aalam bi muraadi tilka loolu ayatul kitaabi aayay téere bi ay kawtéefam la wa qur'aanin mu nekk al qur'aan mu biinin bu bir rubama yawaddu bari mébétee la dina ñi nga xam ne kafaro weddi nañ law kaanu yaalamuun rubba xarafu jar la nakira lay faral di jar day ñëw ci bopp wax waaye bu ca maa jokkoo bari na buñ ko woyofalee ñàkk wax rubba xanaa wax rubba su boobaa dootul jar dara maam yi daf koy fekk mu mën a jokk ci fiil mën a jokk ci leneen law kaanu muslimiin zarhum bàyyi leen yaakuloo ñu lekk wa yatamattau ñu xéewu wa yulhihim soxlaal leen al amalu ay mébét fa sawfa yaalamuuna xal si nañoo xam wa ma alak naa masunoo alak min xariyatin ci waa ab dëkk illaa wa lahaa lu mooy ñeel na ko moom dëkk ba kitaabun dikk معلوم بنيو قم اب تيري مودب ديك ديك بابو نك ما تسبق دو جيتو من امت بني قيت اجلها ديگم با وما يستأخرون دنيو ييخي وقالوا نغنان يا ايها الذي نزل عليه ذكرو اي يومي وخني دنيو واتي تيوى القرآن لولان لنك وخ انك يودي لمجنون دفنغا لو ما تاتينا تيانغا اندلنيو بوانيو اندلون بالملائكة in kunta ndem nekk nga mina saadiqiina ci way dëggu maa nu nazilu buur ne du nu wàccee almalaa'ika illaa bil xaqi ci dëgg wa maa kaanu nekkuñu isan boobalee mundariina ñu ñuy muñal mulaaka bu wàccee rek dootuñu muñ dañuy daal di sottal mbir naa ñun naxnu ñun yàlla nazal naa wàccee nañu zikra alquran wa innaa ñun la xaafizuuna way wattu lañu loo ci alquran walaqad arsalnaa yónni nañu min qablika li la jiitu fii chiyaayil awalina ca giir yu jëkk ya daanañ ci yónni wante wa maa yaatihim masul dikkal leen min rasulin ci yóninte benn kawtéef illaa kaanoo mooy ñu nekk yestahzi'uuna di yejji bii ci loolu kadalika naka noonu naslukuhu la ñu sóob ko moom weddi ga fii qulubil mujrimina ci xoli way weddi ya لا يؤمنون قال دفكتي بكاريا لا يؤمنون دنيو گم بي تي موم وقد خلد وين سنه الاولين يا نو ني جكنا ولو فتحنا دونت اوبي ون عليم تي بابا بنتو من السماء ببايكو تي اسمان فضلوا ني يندو يعرجون دي ييك فيه تي موميتم باي لقالو ني واخنان انما سكرت نك موريفنا ابصارنا سني جيس بل في قوم او هم نحن نيون xawmun aw nit lañ masxuruuna ñuñu njabar waaye li nuy gis daal warul nekk dëgg bay na loolu mu ñëw ci feeñuwaayu kàttanu yàlla ak jeexiti xéewalam mu ne boo ko seetloo ci kawnu bi wala xat jaal def nañ fi samaayi ca asamaan buróojan ay nguunu mooy béréb yi nga xam ne ci la biddiw yi jaar wa zayannaha ñu rafetal asamaan li naadirina ñeel ñi koy xool wa xafidnaha ñu wattu ko min kulli cheytaanin ci bépp cheytaan rajimin bu di bu ñu dàq walis yërmande yàlla ila man istaraqa lu may ku sàcc na sama ak dégg te bu sàcceeg dégg it faatbaahu tafal ko shihaabun ab jum mu biinun boo xam ne aji bir jig jumu la wala suuf si madad naaha tàllal nanu ko ñeel leen wa alqay naa ñu sànni fiyaa ci suuf rawaasiyaa ay doj yu ko téye wa anbat naa ñu saxal fiyaa ci suuf min kulli shay'in lépp lëf mawzunin mu nekk lu ñu màndaxe ba mu yem képp wa jaal naa ñu def lakum ñee leen fiha ci suuf ma maaisha ay bérébu dundukaay wa man ak loo xam ne lastum déet yéen bi ngeen di way wër sa góoloo ci loolu lépp nag du ngeen ko mën a jeexal am na loo xam ne fi ngeen koy bàyyi wa in min shay'in de dara illaa xazaayinuhu lu mooy ay ndàmbam ak i dencam indana mu ngi fi ñun yàlla noo ko denc xam ko wa ma nunaziluhu duñ ko wàcce ilaa bi qadrin lu mooy ci kem maalumin bu ñu xam wa arsalnaa yónni nañu ariyaaxa ngelaw ya lawaaqixa ñu nekk di ñu nekk di way góoral garab ya alliqaaxu moom la dakar bi def ci unsa kooku mooy liqaax ngelaw yi nag ñooy nekk lawaqix doo yëg lu moy ca kaw garab nga séen mu sax ñax ñun yàlla ñoo jël ngelaw yi ñu yóbbu jiw woowu def ko mu nekk la waaqeex foofale bay mu mën a sax ñu jël tontóori bu góor bi it yóbbu ko ci bu jigéen bi ba mu meññ wa ansal naa ñu wàcce min ne yi ci asamaan maanam ndox fa asqaynaakumoo ñu nandal leen ko moom ndox ma wama ak ndox moo xam ne ma antum déet yéen bi xaasini na ngeen di way denc lawoo ci ndox ma am na ci ndox mi loo xam ne du ngeen ko mën a denc suuf si da koy naanaat way naa ñun le nax nu ñun nox yi nooy dundal wa nu miitu nooy rey wa naxnu ñun alwaarisuuna ñooy donn ñëpp bu ñëpp demee wala qad naa xam nañ almustaqdimiina ñu ñu jiital ñaminkum ci yéen ñu dem bu yàgg xam nañ ko wala qad alimnaa xam nañ it almustaaxiriina way mujjeya way na rabbaka nag sa borom huwa moom yaxshuruhum moo leen di fang innahu yàlla xakimun aji xarala la yàlla alimun aji xam la muy itam mu delsi ci di wax nit boppam mu xam fi mu jóge ba bu bëggee bewit yàlla ne ko fi nga jóge woon wax malaaka it ak jinne ku ci nekk na mu mel mu ne walaqad xalaq naa bind nañu al insaana nit min salsaalin mu bàyyee ko ci ban ban ban bu wow koŋ boo xam ne soo ko tëggee mu naan keleng-keleng mooy salsaal min xama in ci banit masnunin bu soppeeku aw melo mooy ban bu ñuul wal jaanna jinne wala iblis nag xalaq naahu bind nañ ko min qablu bu yàgg bala ñu bind aadama min naari sa ci jalangu safara wa is qaala jàngatal nag ba waxee rabbuka sa borom lil malaikati ñeel malaaka yi ne leen inni man xaaliqun ji bind laa basharan bindeef min salsaalin mu bàyyee ko ci ban bu wow min xamayin ci banit masnunin bu daa ji soppeeku melo fa idaa sawaytuhu ndem melal naa ko wa nafaxtu ma wal fii ci moom min ruuxi sama ruuxu fa qacu leen saajidiina ñu di way sujjóot la wa ñeel ko loola mooy ndigal la jóge ca borom ba fa sajada sujjóot na nag almalaikatu malaaka ya kulluhum ñépp ajmauna mboole seen illaa iblis moom aba bañ na an yàkkoona mu nekk maa saajidiin ànd ak sujjóot yi qaala mu ne ko yaa iblis maa laka loog yow allah takoona doo nekk maa saajidin ànd ak ñi sujjóot qaala mu ne man dey lama kun nekkuma li asjuda di sujjóot li basharin njël mbindeef moo xam ne xalaqtahu bind nga ko min salsaalin ci ban bu wow min hamayin ci banit masnuunin boo xam ne aji soppeeku la mu aw melo loola duma ko sujjootal xaala wax buur ne faxruj kon génnal min haa génn ci aljanna ji fa innaka yow rajimun kuñ dàq nga wa na alayka naka war na la tam rëbb ilaa yawmi diin ba bés pénc xaala mu ne rabbi yàlla fanzir nii muñal ma rek balaa maa rey moom nanga ma muñal ilaa yawmi yubaasuun ba bés bi ñuy dekkal nit ña su ko defee moom mu ñàkk dee xaala wax buur ne fay naka yow kay minal mundarin wóor na ne bokk nga ci ñu ñuy muñal ña waaye ilaa yawmil waxti ba ca bés baag waxtu wa almaaluma bu ñu xam xaala mu ne yàlla bi ma axwayta nii li nga ma bewloo law zayinan danaa rafetal lahum ñeel doomu aadama yi filaade ci suuf wala uxuyannahum danaa bewloo leen ajmaina mboole seen ilaa ibadaka xanaa lu mooy sa jaam ya almuxlasin ñi dañu ñu sellal minum ci ñoom qaala mu ne haada lii day siraatun aw yoon la mustaqimun wudaa ji jub alee ci man inna ibadiya naka sama jaam yi may jaamu ñooñu moom loolu yoon la dara nga leen nga leen dun mënal laysa laka ñeelu la alim ci jaam yi may jaamu sultaanun benn kattan illaa man ittabaaka lu moy ku la nangoo topp min alxaawina ci way réer ya way na jahannama naka safara la mawiduhum mooy seen randiwo ba ajmaina mboole seen laa ñeel na safara sabaatu abwaabin juróom ñaari bunt jahannama sair xatamatu laza saqara jahim haawiya mooy sabatu abwaabin li kulli baabin ñeel na bépp bunt minum ci ñoom juzun ab xaaj maqsumun boo xam ne bu ñuy sédd bu ko séddee la nga xam ne ñooñu foofa la ñuy jaaree ba dugg mu ñëw ci ñi ragal yàlla yowmal qiyam mu ne inal muttaqin naka ñi ragal ñi yàlla ñooñu nak fi jannatin ñoo nekk ci aljanna yi bo uyunin ak sew ndeya ñu naan leen udxuluha dugg leen aljanna ji bislamin ànd ak jàmm ne ngeen di way wolu wa nazana ñi summi ma fi sudurim lépp lu nekkon ci seen dënn min xilin ci mbañeel ikhwana ñu nekk di bokk ala sururin ñu nekk ci lalya mutaqabilin ñu nekk di way jakarlo la yamusuhum du laal leen fiyaa ci aljana na sabun benn coono wa maa deen ñoom bi muxrajiina ñu di ñu génnee minaa ci aljana ji inaa ñu ndey way jiloon a way tiit lañ min kum ci yéen ndax gan gu ñëw warul ñaqul taqul suuf fan la jóge xaalo ñu ne ko laa taw jël bul jàq inaa ñun nu bashiruka doon lay bégal bi gulaamin ci doom alimin ju ñu xamal xaala mu ne a ah yéexuleenam abashartumuni ndax da ngeen may bégal ci doom ala an ànd ak laal na ma nag alkibaruk màggat fa bi ma tubashiruun lan ngeen may bégal xaalu ñu ne ko bashirnaaka bégal nañ la bil xaqi ci wax joo xam ne dëgg la wala takun bul nekkati mukk nag min al qaanitini ci way naago yi sa yaakaar warul dëgg ci yàlla qaala wax ibrahima ne wa man yaqnut daana mu ne dee naago min rahmati rabbihi ci yërmaandey borom illa daluun lu moy way réer ya qaala fa maa xatbukum lan mooy seen mbir ayyuhal mursaluun yéen ñu yónni ña malaaka yee xaalu ñu ne dinaa ñu ndey ursil naa yónneef nañu ilaa qawmin jëm ci nit mujrimiin ñay def kati bakkaar illaa aala lootan lu mooy waa loot mooy ñi ko gëm innaa ñu ndey mun a joohum way musal lañ ñi ko gëm ajmaina mboole seen illam raatoo lu mooy jabaram ja qadar naa dogal nañ ne innahaa naka ndaw sa moom la min alxaabiriin bokk na ca way alkuña ca mbugal ma falamaa jaa ba dikkalee aala lootan waa Luut almursaluuna malaaka yi ñu yónni ya qaala mu ne innakum yéen xaw qawmun aw nit ngeen mun karoona ñu ñu fakk xamiwuma leen de qaalu malaaka yi ko ballu fi nekk ji naaka dikkee nan la bi maa kaanoo ca la nit ña nekkoon yamturoona di sikk fii ci loolu dañ naan werante moo naan ndax mbugal yàlla am na kom déet loolu nag leen indi tey waatee naaka dikkal nañ la bi ci dëgg way naa ñun la saadiqoon way dëggu lañ fasri rañaanal bi yaalik ak sa ñooñ bi qitaayin ci dagg yi mu ne leeli ci guddi wa tabi na nga topp adbaarum seen gannaaw wala yaltafit bu geesu minkum ci yéen adun kenn wam doo wéy leen xay su tuumaroon fu fi dee fi digal leen wa qadaynaa ñu dogal ilay ci loolu ci ñoom zalika amra moom la mbir ne anna dawaabira haawulaay naka gati ñi le maqtuun lu ñu nar a dagg la musbixiina suba cooy wa jaa dikk nag al madinati waa saadoom waa dëkk ba yastabshiroon na ngay bég ci góor ñi fi ñëw qaala mu ne inna awlaay ñi day day fii samay gan lañ falaa tafdaxuuni bu leen gàcceel ma fataqulaa ragal leen yàlla wala tuxsuuni bu leen toroxal ma qaalu ñu ne alam nanhaka anil alamin ndax terewuñ la woonati gan yu góor yi qaala mu ne haawlaay ñii banaat yi sama doom yu jigéen yi in kuntum ndem nekk ngeen na di way def li ngeen nar jëm jël leen ñooñu ma may leen leen ngeen yóbbu leen la amruka waaye yàlla ne yonent bi la am amruka géej naa ci sa bakkan innahum naka ñoom ba ñuy wax loolu rek la fi sakratihim dal ñuy nekk ci seen mandité ba gaa yi masa kanam ya gisatuñu yaamoo na ñuy déng-déngi faaxadadum jàppaleen asayatu xaacug malaaka ma mushriqina ca penku fa jaal naa ñu mu jëla ali yàlla faran kaw saafilaa mu far suuf wa am naa ñu tawaalim ci ñoom xijaaratan ay xeer min si jil mu bàyyi ko ci tabaxi suuf inna fi zalik aji nekk la ci lool laayatan kawtéef lil mutawassimina ñeel ñi nga xam ne danañu xalaat ñoo ñuy xalaat daal di seet di seet di settantal di xalaat mën nañoo xalaat ci loolu wa innaha naka saadoom la bi sabilin ma nga nekk ci yoon wa muqimin wu daa ji sax ku génn rek jóge màkk jëm ordon danga ko romb inna bi dalika aji nekk la ci loolu la ayatin kaw téef lil muminina ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla mu ñëw ci ñitu Shuaybu ya mooy ne wa in kaana naka nekkoon na asxaabul aykat yi waa golba golba mooy nitu Shuaybu ya mooy asxaabul xijari mooy samuuda nekkoon na ñoomit la daalimina di way tooñ fantaqam naa ñu dal di fayu minum ci ñoom wa innahuma naka ñoom ñaar yooyu la bi imaamin ña nga nekk ci yoon wa mu binin wu daay ji biir maanaa bu waxee la bi imaamin mu biin maanaa ñu ngi nekk ci yoon woo xam ne wu leer la ku dem da nga gis màndarga ya wala qad kaddaba weddi woon na asxaabul xijari waa samuuda almursalina ñuy yónni ña waa tey naa ñu jox leen ayatina suñu kawtéef fa kaanoo ñu nekk am mu'ridina di way dëddu anaa ci kawtéef ca seeni pexe yan xituuna di yett min al jibaali ca doy ya bu yootan ay néeg aamini nañu di way wóolu faa xadarum jàppaleen asayxatu xaacug malaaka musbixiina ñooy cuuyu suba teel fa ma agna jëriñut anum ci ñoom maakaano la ñu nekkoon yegg si boona di faggu ko wa ma xalaq naa binduñu samawaati asamaan wala ard ak suuf wa ma bay nu maag li ci seen diggante ilaa bil xaqi lu mooy ci dëgg waaye na saa'at naka bis penc laatiyatu naa ji dikk la fasfax na nga jéggale asaasa dëddu ak jéggale aljamila guddaa ji rafet way na rabbaka nak sa borom wa mom safhu moy jéggale dëddu rek joxe gannaaw wa yàlla alxalaaqu mooy bindaakoon ba alalim guddaa ji xam ay jaamu jamu bayna loolu mu ñëw ci tawjihat di wax ak yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne walaqad aataynaaka jox nañ la sabaan juróom-ñaar min almasaani ci ñaareel ya walquran alkari azim ak alquran bu tedd bi itam ñu ne loolu at fu bayaan la fu ñu ne déedéet at fu nasaq la su fekkee wal quraanil azim at fu nasaq la kon quran dara la sabul masani di leneen te sabul masani ci alquran la kon nag at fu bayaan la jox nañ la saban min almasaani wal quran alazim sabul masaani mufassiroon yi ne nañ mooy juróom-ñaari saar yu gudd yi boo dalee ci bàqara saar yooyu nga ciy teg juróom benn yee ca tegee ñoomi naa lu imraan ak nisaa ak maayida toog yooyu juróom-ñaar yooyu ne mooy sabul masaani am na ñeneen ci ulamaaw yi te ñooñu ñoo gën a bari ne nañ mooy fatiha te wax jiñ wax ne moy fatiha lalu hadith la sheikhani yi génne nañu ko ñaari serigne ye bukhari ak muslim ne nañ fatiha mooy sabuul masani ñu ne lu tax ñu ne li tax mo di ne julli gu ne dañ ko ciy waxat kon nak moy juróom-ñaari aya yu ñuy bamtu ci ràkka bu nek looloo tax ñu tuddé ko sabul masani am nañu ne déedéet tuddee nañ ko sabul masaani ndax juróom-ñaari aaya yi bu ci ne day baamu morom ma ndax boo ne bismillahi rahmaani rahim ne alhamdulilahi rabbil alamin da ngay waxaat arrahmaani rahim mu ne boo ne maliki yowmi diini boo ne iyaaka nabudu fa nga waxaat iyaaka boo ne ihdina fa nga waxaat ihdina boo ne sirata da nga waxaat sirata boo ne anamta alayhim boo ne xeyril maxdub da nga waxaat alayhim ñu ne kon mooy juróom-ñaari aaya yi ñuy baamtu mu ne ko laata mu tamuddanna bul tàllal aynayka sa ñaari bët ilaa ma mataana jëm ca la xéewal nan bi ci azwaajin ay xeet menum ca ñoom bul jël sa bët di ko tàllal mu jëm ci yeneen xéewal yoo xam ne keneen lañ ko xéewal mu mel ni danga koy añaanee ولا تحزن بالجق عليهم تي نيوم واخفض نغا سوفل جناحك سي للمؤمنين نيال نيغم يال وقل وخال اني من انا من انذر ما يجي وار المبين كدا جبير كما انزلنا نكا ني على المقتسمين تي نيو نيغا خامني نيوي سدلي ولا على المقتسمين تي ني سدلي كو اي يون ني ليسدوان سبيل الله ني ني سدوا القران ñeene nañ sixrun la ñene ne déeréet chirun la ñenn ñi ne kahanatun la ñooñooy muqtasimin quraysh ñii séddale alquran ñii def ko njabar ñii def ko mbuxaaba ñii ne ay way la moo tax mu ne kama anzalna naka ñu wàccee alal muqtasimin ci ñii séddale alquran mooy ñan lazina ñi nga xam ne jaalu def nañ alquraan alquran iddiina mu di lu ñu mu mbooloo loo xam ne dañ ko boolee teqale ko wala iddiina mu di lu ñu teqalee ndax kalimatu iddu yaani jamaa jamaa boo xam ne dañuy teqalee mooy ñi nga xam ne dañoo teqale alquran li ñu def ko way li ñu def ko leneen fa wa rabbika géñ ci sa borom la nasalannahum danañu laaj leen ay na mboole seen amma kaanoo ci lañ nekkoon yaamaloona di def ko fasda mu ne na nga leeral bi ma tuumaru ci la def na digal la ko assadaaw moo di xotti xotti mooy tasaare ba mu leer waarin nga dëddu anil mushrikiina walis way bokkaale innaa ñun yàlla kafay naaka ñoo lay fegal almustaziina ñi lay yejji la jëne ñi nga xam ne yajcaloona danañu def ma allaahi ànd ak yàlla ilaa an yàlla aaxara beneen fa sawfa yaalamuun xal ca nañoo xam wala xad naalamu xam nanu ne annaka naka yow yadiqu dana xat sadruka sa xol muy sa dënn bi maa yaquluuna ci la danañu tegle ko ci wax fa sabbix na nga sellal bi hamdi rabbika cant ak sa borom wa ku nekkal mina saajidina ci way sujood ya waabud jaamul rabbaka sa borom xataa yaatika ba dikkal la al yaqiinu dee